audani lahu min asheytaani waxada li mën a fihal awtan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki réew mi ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew seen mbokk Ahmad Ibn Ousmane moo leen di nuyu te di dénk sama bopp di dénk ñépp ñu dalal suñuy xel ci lu ñuy tudde balaa wala épidémie dama bëgg Sénégal yi xam ni feebar yàgg naa am feebar bii ñuy wax ne daa wàcc Chine ba pare di tas ci àdduna bi bu mu tiital kenn bis bu nekk nga gis ku biiram di metti mbaa boppam mbaa tànkam mbaa bëtam mbaa noppam mbaa benn cër ci yaramam toujours muy am loolu même bu dul woon balaa bu wàcc ca chinois ba noppi di tas même bu dul woon loolu itam ñiy dee itam bu dul woon feebar bi ñuy dee dee moom fu mu jote ak fu mu la mën a fekk walaw kuntum fii burujin mushayyada qul li innal mawta lazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum maanaam dee doonu loo xamante ni bii kenn mën na koo calculer feebar itam ku mu nar a dal kenn munte tee mu dal la jarul kenn yi tiit jarul kenn yi tiit wala boo gisee ku sëqat nga defe ni kooku daa feebar wala yu demee noonu maanaam nañu dalal xel yi te tawakkilu ci yàlla fal yatawakkalil mu'minuuna ala la croyant bi dafa am loo xam ne du wàllam nit ki bu gëmee yàlla gëm dee gëm la vie de demain après la mort maanaa dafa war a wàkkiilu ci yàlla fa lee tawakkalil mu'minuuna ala Allah amul takk masque amul dara ku tedd ki de moo nuy jàngal ni an nafu wa zurru min arrahmani laysa minal bidaani wa suudaan nanu gëm waxi ku tedd ki waaw te bayit yi fi nekk yëpp ñu mën ko gànnaayoo dafa bari ni hafizani hasamani najjaani allamani man bil huda naajaani allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shifa min kulli daa muqaddari ma mun na alayya bi ulumil asfiya bi kitabati kulla dashfiya jarul tiit bu kenn naan coronavirus bi ñëw na feek épidémie bi nag épidémie moom fi si buroog ngas ak feebar yooyu yëpp da daan am waaw bu feebar xayo ci chinois yi rek dem ci dëkk tubaab yi rek ñu naan ñëw na feeg ñëwu fii nag ñu dalal xel yi ko bëgg a dem marché demal fu ay bëgg a dem demal dee ak feebar kenn mënu koo moytu kenn mënuta wàll kenn liy lore ak liy jariñe ci yàlla lay jóge du jóge ci nit ku weex du jóge ci nit ku ñuul loola ku tedd ki wax nañ ko gëm bu fi kenn tiit na ku nekk dem ci sab liggéey te wàkkilu ci yàlla te ngeen baal ma was